ci yéen am mbégte ah euh, bi ma waa réew mi tivi ah la chaîne du peuple loolu nga wax ah la télé du peuple réew mi quotidien ah réew mi nag moom ma yàgg naa wax prési ne ko jël nga tur boobu bu am maanaa réew mi ah, réew mi donc dégg ma seen micro ma jàkkaarloog seen caméra ngeen fa yéene ma may wax mais da mbégte lay doon ci man parce que euh, bi njëkk moom mooy ki nga xam ni moom mooy président Mbagnick mm-hmm. di suñu xarit suñu doomu ndey euh, nit bu baax nit li may wax Youssou laa koy faral di wax l'africain le sénégalais moom réew mee ko soxla am réew mi dañu soxla kuy jël doomu réew mi di leen yënguloo ci réew mi dégg nga ah, waa réew mi bu jëlee seen seen kilifa di jël doomu réew mi di leen yënguloo ci réew mi ñuy bégalaate di bégal waa réew mi di yee réew mi donc sa sonne trop et très même moom moo tax may leen est xam ngeen ni seen kilifa di la président Mbagnick gaynde la c'est un lion waaw ko et puis nag ñoo ngeen seen kër parce que euh, madame Diop Diatou Sané mm-hmm. euh, mook maam Ndiaye mënoon nañ jël micro mm-hmm. dékk ma ko may wax ci réew mi ah parce que ku ne xam na ni ñoom ñaar nii la donc félicitations encore une fois balaa ñuy tàmbalee waxtaan wi di dem. merci beaucoup en tout cas tonto euh, mbay Dièye mais avant j'aimerais nga apporter benn précision parce que sànq yaa ngi ñu dalal ci sa somptueux salon bi macha allah maa ngi gis benn tableau bu rafet bu ñu fa accroché c'est marqué dessus Mbaye Guèye Faye beaucoup disent mbay Dièye fay c'est quoi la nuance c'est quoi s'il y a une différence bëgg nañ ko xam. Euh, bon tableau bi bon xam nga gars nag dañuy xër ko defar. daf ko defar yónnee ma ko jox ma ko boo xoolee euh, du man rek sax maa nekk ci tableau bi am na kilifa bu ci nekk bon ñu bari nag dañuy jaawale géey bi ak jéey mu fet sa jéey waaw moo tax may faral di wax man maay euh, borom ñetti sant yi dama jël mbay c'est notre famille jéey c'est notre famille fay c'est notre famille donc mbay nag mooy Babacar ah. mbay jéy fay la mbay jéy fay ah voilà. kon mais ñu bari te mbay mbay géey bi parce que xam nga mbay géey moom saa saa saa son dañ koy dégg lu bari mais mbay jéy fay. mbay jéy fay ah laaj nga ma question bu am maanaam boo xam ne mën naa ci répondre mbay jéy fay en de la musique mbay jéy fay. C'est un petit-fils de 5-5, fils de cinq cinq fils de 5 5 hein, d'une grande famille griotte. Euh, boo déggee ñu naan cinq cinq defe naa bu ngeen seetloo lu ngeen dégg ma way ko diggeen ci dégg turu cinq 5 d'abord Mbaye Dièye fay benn doomu aadama la boo xam ni yàllaa ko sàkk ah wàcc ko ci suuf def ko ni ko def euh, Alaaji V5 Faye jur ko. ak ajaratu daara mbay ah, maamam di baj géwal ndakaaru man baj géwalu ndakaaru laa merci beaucoup euh, ñun ay lébu lañu ñun ay lébu lañu à sunu maam seng-seng ni may waxe ni moom daawul waxee ni da daan wax comme boo duggee yoof aw dama la ngëj mag ni yooyu leen daan wax surtout lébu yi ñun dañu bokk ci fukki pénc yi ak ñaar euh, di ay sëtu lëg daawur man rek ak lu ma bokkal deret rek maa la mën a wax ni lëg daawur sunu maam rek la daan janal maam seng-seng tous les jeudis bu xaaju gi diggi jotee nga dégg tànku fas yi muy kokki kokki ba fii ma dëkk nii guddi alxames lëg daawur dana fi jaar waaye kenn mën na koo bañ a xam waaye man su ma déggee dinaa xam ni kii maam la ndax fu ay sëtam ne daf fay jaar boo xoolee lelek ma ni sax bul ko laal bul ko jege waaw mbay bul laal bul jege waaw parce que li mu ànd la tax et donc nekk ba géwal ndakaaru judd ci këru ngéwal nag gu mag jàng li nga xam ni moom mooy sabar waaye nag mu nekk ci deret bi d'abord xam nga lu nekk sa deret il faut mu génn loo ko téye téye téye day génn parce que deret la kooku mooy mbay Dieye Faye bien sûr xam nga li naan kéwal du tëb doom ji bët est mais doom ju bët rek dafa fekk euh, xëy na nga bañ koo def waaye mi ngi sa deret àla kuli àll boo ko deful tamit di ko yëg ba wane ni yow lii nga mhm. lii mooy daw sa deret parce que boo déggee ñu naan kéwal du tëb doom ja bëtt maanaam kéwal day tëb donc doom ja ba wiiree rek am na lu manqué moo tax ñu naan kéwal du tëb doom ja bëtt bu tëbee rek doom day day day day day tëb doomu doomu ñay euh, rëy lañ ko xame bu ko ñaanal mu rëy dana rëy ala doomu ñay dana rëy doomu gaynde noo def mu ŋar maanaam noo def mu yuuxu parce baayam loolu la xam gaynde la te it noo def mu rëbb ah parce que gaynde la waaw euh, xam nga tey jii xar mi boo ko sololoon jasneer bi gën a cher ci jasneer yi daggal ko ci gramb bu musóor ko boo ko bàyyee ci xar yi rek la jëm euh, boo nit ñi déggee ma naan moo jumeau danu bokk bésu anniversaire ñun ñaar ñëpp ay premier octobre la Euh, Youssou dañu màggandoo ak seen kilifa bii di Mbagnick le président Mbagnick ñoo defandoo nii ah oui oui ma lay xamal ni balaa ma ciy ñëw euh, kooku ma tudd di Mbagnick ak Youssou mais dañu am ay jaar jaara ah xam nga jaar-jaar dafa baax ci doomu aadama nit day am jaar-jaar day jaar ci lu metti mujje ci lu neex Youssou ñu màggandoo di ànd sunu maam yi di ànd sunu ndijaay yi xamante ma di doomu Faas di doomu Médina moom muy doomu Médina ca rue 15 ak rue ba ma soxee ko kër maamam bu ñuy wax Boubacar Ndour bi ñu tuddee Bouba Ndour mii mu jur yaayam euh, en 1973 la ñu commencé nag di dugg ci yëf yi 73 ah ouais ça fait longtemps je touche du bois Dieu merci ñuy dem di dem di dem di dem ba dugg ci musique fin 73 jàpp 74 dugg ci musique bi. àndandoo di def. Euh, soixante non soixante treize euh, ñun ñooy ànd di jàng li nga xam ni moom mooy musique bi muy way man may tëgg ñu bokk orchestre bu ñuy wax jamono 1 à l'époque bi jamono 1 boobu tasee la super jamono formé moo tax ñu naan super jamono parce que y avait le jamono 1 à l'époque euh, muy way may tëgg di way en même temps parce que man woykat laa woon mais bi ma demee ba gis ni sans waa ji mën naa woy lool ma ni xaaral man ma doon tëggkat bi lool waaw ah ñu ànd xooslu dem fu ne ah ah dem fu ne je te dis suñu premier 31 décembre ni am ku ne 1000 francs fa mais c'est c'était beaucoup. Mm-hmm. ko mais dañu joué ba tas ñu ngi ànd ak ay doyen. ñu nu magoon ci musique bi parce que ñun sunu euh, Pastef yëpp moo doon juillet 31 décembre nekk ci benn scène ba soirée bi tas ñun loolu rek leen bëggoon et euh, benn club bu ñuy wax club libanais mi ngi nekk fii tey boo jëlee autoroute bi di ñëw booy balaa ngay romb euh, jot EMG foofu la club bi nekkoon waa Mbaye Guèye notre ami Mbaye Guèye nit bu baax ah. nit bu baax nit bu baax bu am maana bu baax bu yaru waaw waaw parce que avant ni ma dem ni ma dem ba duggee number one euh, si euh, lu jamono un boobu man ak Youssou ak ndem si yàlla si euh, déggal pardon ndem si yàlla si Charles Diop Edouard Varfroy ndem si yàlla si Marc Sambou bi nekkoon ak ñun ñoo fa nekk ndoo ah, ak Ousseyn Ndiaye mais loolu bi mu jeexee jamono un boobu ma nekk ci benn group bu ñuy wax super xam-xam waaw boo déggee tur bi sax di xaw a ree xam-xam maanaam dañu xam lu bari lu xam nga lu super ci musique tu vois y avait man Ousseynou Ndiaye Jimmy Mbaye Assane Ndiaye Assane Ndiaye bi di way ñun ñeent ñoo boobu ñoo nekkoon ci orchestre boobu muy super xam-xam sunu baay yàlla na suuf oyof ci kawam Alaaji Abdoulaye Ngom di papay Pap Ngom Sédima Pap Babacar Ngom ñoo daan ànd tu donc ñu ne dañuy jouer caserne Samba Diéry Diallo ce jour waroon nga ma gis nag parce que défilé woon tumba bi ma doon tëgg maa ko foral sama bopp for ko comme ni cubains yi di foree tumba xam nga c'est ñoom c'est des salseros for ko pour rek bëgg am son bu jéggi dayoo son bu yuuxu waaw mbeewal loolu yëpp da koy seede ko neexee na mbee xaal mi et jour boobu noonu ñu am benn chanteur guinéen bu mënoon a way moom tamit dan reprendre ay morceau Boubacar Demba Camara euh, de la Guinée ñu départ morceau bi waa number one ñu ngi jàkkaarlook ñun ci beneen scène bi parce que caserne Samba Diéry ñaari scène la woon bi à gauche bi à droite mais waa number one ñi ngi teg sono bu jéggi dayoo sono bu am maanaa dem si si lengstal mi ngi teg ay kongaas maanaam ay tumba yu bees tax ay elpi man sama yoos ay asba la yu euh, ancien mais dama ko verni for ko seere ko ba boo déggee der bi bu ma ko tegee non le son da ngay yuuxu et eh, ma ni tey dinaa leen impressionné ñi boobu su ma benn xaritu ndi jaay ku ñuy wax mbay guitare ak ñoom Yaxya Fall ñi ñu ñu ngi nëmboon ñoom mais bi ñu déparé rek ba gars yi jox ma ne ma ëpp solo maanaam nga développé bi ma développé maa ngi leen di xool ñoom ñëpp jóg taxaw di di ma yëndu ma ne ah affaire bi dal na waaw parce que défi woon noonu suma benn frère demi frère bu papa mi ngi kontaan mbay fay bi ma paree mu ñëw jël ma xëcc ma ñëw ci wàllu mboon ne leen sam kii sama doomu frère la euh, le guitariste aussi moom itam mbay guitare kontaan ku ne ngi bëgg wan ni wane ni yaa ma yar ci ñoom et donc Numba woon invité ma ma dem seetaan leen Sayel parce que Numba woon doon na joué Sayel ma dem fa fekk percussionniste bi ñëwul Lengs dafa xaw na feebar tuuti ma ñu jox ma tam ne ma ndax mën nga ko assurer bon xale laa woon ah gën naa nekk xale may leen mais bien sûr ñu ne ma acca nan départ Numba orchestre bu mag ah bu mag ah. parce que ñoom daan nan ndëmboon seen ay contrat daan na dem année lëmm bu bu comme par exemple nga ni 2007 ñu ne mënoon ñu la tëggal 2007 2018 lañ la mën a tëggal ndax chargé mais ma tëgg soirée bi soirée bi neex ñu war a dem ñoom Casamance ne ma dañuy dem Casamance demal nga jëli say bagage may leen non ñu ne ma abbé ah, pourquoi xanaa bëgguloo bokk ndëmboon may leen bëgg naa bokk ndëmboon mais dama am kilifa mënuma fi jóge rek dem jël samay bagage topp leen pour ñu dem Casamance te tàgguma sama papa wala tàggu suma tàgguma suma yaay loolu nag amatul léegi ah, ci musique bi non xale yi yàkkamte ngay leen ëpp bay ñu ne la ëpp mm-hmm. non mais ñu ndaw ñu dox doxale noonu ah ñu dem waaye ap ñu ñëwaat invité ma ñëw ñu joué ñu ne ma dañ la bëgg a jël nu mboon ci jamono boobu proposé ma salaire ah ma joué ñoom def seen album yu mag yëpp nag xam nga et Youssou di formé moom itamit nag super étoile xalaatul kenn ku dul mbay ji seen bëggee mën naa ñëw foofu waaw gis giseek ay connaisseur ndeysaan Ibolaay bi daan def théâtre moom moom Ibolaay man maa ci waxtaanoo nag moom mais Youssou waxtaan ceeg ku ñuy wax Papa Dieng Balaki ah bi ànd ak alaaji Bekaay Mbay ci lay di téeg waxtaan ak moom ñoo ñëw laaj ko mu leen kenn rek laa xam ne bu ma ko amee groupe bi dana suudewu lool te danaa dem mm-hmm. ñu ne ko kan la mooy leen mbéj gi wala ndakaaru mbay ji mm-hmm. loolu lan mu taxoon wax ko xorom si wala. non mm-hmm. boobu xam na ma ay xarit lañu ànd na lu yàgg te xam na li ma li ma mën a apporter tu vois ba pare xam nañu tamit maay bajjiwal ndakaaru mës nay wax ak nit ne leen kooku ne ko am ku ma nuyu ne ma grand gëj naa laa gis mu ne ko def nga erreur bu mag mbay jee kenn du ko gëj a gis kii mooy bajjiwul ndakaaru xanaa gisu leen ko man gisu leen ma man yu soo wax loolu de ne gisu leen ma man waaw nii rek ca kaw rek waaw tu parce que bajjiwal ndakaaru dafa am nag lu muy joué tu xam nga bu ñuy fal sal saltige fal jaraaf fal sëriñ ndakaaru ne kenn amul droit door sept coups de baguette bu dul baj giwal ndakaaru nga xam ne kon am na lu ci biir waaye ah, loolu nag xam nga jaaxal na nit ñi ah, e àdduna nit ñu baree ngi ciy jàng nag am na borom xam-xam yu mag léeg-léeg ñu jël exemple ci man ak Youssou Ndour tu vois euh, naa dégg alaaji Iran Ndaw ñu koy saluer de passage mu naan bu ñuy jël référence ci ànd nan xool mbay Dieye fay ak Youssou Ndour seen ànd mi ngi yàgg te ñaawul xam nga loolu lan moo koy indi noo léeg-léeg euh, bëñ ak làmmiñ ñoo dëkk léeg ñu laalante mais hmm? benn yoon rek laa mës a fàttaliku man ak Youssou ñu wax ba ku nekk dënnam tàng mais après ku ne da nga wane ginnaaw say rangoñ tuur day am da ngeen day ñu wane ginnaaw euh, ku nekk gis ni xam nga ay rangoñam mi ngi wàcc waa mais parce que ay xarit lañu et circonstance bu ndaw rek xam nga seytaane dafa bari doole rek tax na bés boobu ku ne wax ak sa moroom ba mais ci wax ji yëpp nag kenn du dépassé sa morom. ci cadre liggéey bi cadre liggéey yaa ngi dégg mais li may wax ni li attend léegi mu mat euh, vingt ans kon nga xam ne yàgg na mais ba léegi nii je touche du bois parce que xam nga lu koy indi ànd ñu bari seen ànd ak seen xarit walla seen ànd ak nit li ko mën a yàq bari na. xam nga loolu lan moo koy indi seetlu ak lu tax moom di ànd ak nit yàlla jox ko un million par exemple jox la deux cent mille wala trois cent mille ci liggéey ci xayma wala quatre cent mille comprendre nga nga daal ne kii li muy am man mi war naa koo am tamit temps ah, fekk non mais kenn mosul euh, kenn sañu ko. kenn sañu ko xam nga lu tax. Mm. sooy ànd ak sa nit. yàlla def ko ni mu ko def. nongul ko ko. nongul ko ko du ñàkk nag léeg-léeg mu am ñu bëgg jëb sotti ci kaani pour rekk gis lu méngoo li mu daawul gis ci déggoo ak xarit yow yéenante tu vois loolu yàlla dafa dogal nag wax fa dëgg yàlla mu am yu nu bokk man ak moom Youssou day jëlle xol bi def rëy du wax lu ñaaw parce que ruus na ko man tamit sunu borom may na ma loolu xam nga lu tax fi ñu soxeekoo la on n'a pas droit à l'erreur wala ñuy wax lu ñu xeebe bu ñu ko xeebeewul ñun sax bu sa doom rombee ñu ne àccim baay bee fi waxoon lii kii de baayam accam waaw écurie nag yow nag laal nga gómba parce que écurie doone écurie Fass te waxoo ma man doone écurie Fass te tuddoo waa sañ-sañ parce que ki nga écurie Fass maa ngi koy wax keroog ñun ñun dañu mën a bëre ah du nu ay mbër nag waaye lu mbër yi bëre xam nan ko lu nuy waaj def ci bëre xam nga xam nan ko waaw xam ci bëre waa xam nan ko maanaam damay après damay ñëw ci rythme bi ñun suñu kër ba écurie Fass doon uni bu fekkee ne université la suñu kër Fass mooy mooy bureau ba. ñëpp fa la ñuy fréquenter ba ci musique bi ku bëggaan ñu dégg la ci musique foofu ngay fréquenter à l'époque parce que y avait les Cheikh Tidiane Tall Ndem Sall si les Idrissa Diop les tonton Blin Mbaye les maanaam ñi màggoon ci musique. crème bi quoi laa la bëgg wax waaw ñi nga xam ni en 1974 ñu ngi daan percevoir ki gënoon néew salaire 150 000 la amoon CFA à l'époque en 1974 kii salaire am gënoon ne yeeg 300 000 la amoon xëy na sax 350 000 boobu Alaaji Ndiouga Kébé moo defar Sayel tu vois donc Fass lan daan dajaloo kër ga comprendre nga. moo tax musique bi bettul ñi ma xam parce que ñun ma suma côté famille ñi ci ëppoon ñëpp théâtre lañ daan def ñun théâtre lañ njëkk a def mën a yuusu ak si dramatique jël jël finale semaine de la jeunesse daal di éliminer cercle de la jeunesse bu Louga te boobu cercle de la jeunesse bu Louga ñoo fi mënoon ci théâtre ñun ñu ñëw pousse leen jël finale bi boobu am na ay théâtre kat yoo xam ni ñoo daan ñoo bokkoon par exemple Rama Thiam euh, Bas Jaxate ñoom Sidi ñan ñooñu ñoo bokkoon seen dramatique waaw mais keroog dem nañ ba final bi metti lool mais ñi ngi euh, jury bi mi ngi jëlee décision que ñun ñooy gagné ba Youssou jëlee micro bi way euh, ngóor battu xale bi di résonné ci stade bi ma dar kook sabar yi man ak sama gars ñu ànd bale bi gars yi dañ nii la tu vois donc Fass euh, écrit bu mag ah, waaw mu yàgg nag parce su ma ndijaay dafa daan bëri moo doon moo doon raay numéro un faga ndijaay euh, tonton pap nekk manager papay Ablaye Mbaye tonton Dame nekk manageru Mbaye Guèye moom itamit donc mbër yu baree ngi fi Sénégal ci mag ñi jaar nañ ca kër comme comprendre nga man man li man sama jàng man jàgguma école de. doo ma ne à l'époque sax ñu ngi naan ñu ngi naan troisième primaire lan lan wax <laughs> tu vois xam nga. sori soriwu ma ci waaw bon peut-être intelligence la ah. léeg-léeg xale yi suma waa kër ñuy waxtaan. xam nga ma jékki-jékki rek daal di articuler noonu genre ñoo billaay boo jàngoon du baax <laughs> non soriwuma école non soriwuma boobaa parce que après dama topp musique bi topp théâtre bi ak voyager ak noonu nag ak yu bari mooy tax sax xam nga yenn kàllaam yi da leen ma wax anglais nit defe ni dama ko jàng école bu baax fekk école de la rue la tu Euh, bon yàgguma yàgguma fa te xam naa ne moo fa yàggoon dinaa ci doon nit naan bu mag ci école ba mais nag kaay ma jox la benn anecdote mm-hmm. euh, école bi daan na def feet maîtresse bi ndeysaan madame Ndaw duma ko fàtte waaw mais daf ma bëggoon parce que lan laan wax naan dama mignon woon bi ma nekkee xale donc moom bu daan dem këram man lay woo def ma partenaire am mm-hmm. ma jël livre yeeg kay kii te ma bëggoon quoi mm-hmm. et suñu directeur ndeysaan euh, Papa Abdourahmane Diop mm-hmm. dëkk fii euh, zone B euh, moom tamit mais bu feet amee dan ma daf ma naan indi benn sabar rek ma dem indi benn sabar kër ga ñëw école bi yëpp cotisé ñii vingt cinq ñii di francs ñii kii ñu dajaleel ma ko ma dóoral leen bet sabaru sabaru benn tëggkat ci bi ci cour bi bu fatt tarej daal di wàcceeg sama mbuusu xaalis daal di dem donc euh, voilà euh, école bi nag yàgguma fa yàgguma fa waaw yi nga dégg xam nga nag may kii rek yooyu yëpp waaw ngéwal géey moo ma dugg ngéwal géey ma dugg mm-hmm. hmm? mais vraiment loolu ma ngéwal ngéwal gi duggee tamit alhamdulilah mm-hmm. waaw euh, li koy indi moom mooy Euh, fecc liir bu neexee yaay tayaat jàpp ca mag ya mm-hmm. koo fi dégg ku ne nii wax ci moom jàppale nañ ko mm-hmm. ba ci sëriñ bi am na ko jàngal xam-xam mm-hmm. euh, donc boo demee ba màcc ci noonu xale yi tamit dañuy bëgg nga bigëp leen nga bigëp leen ñu am morceau euh, album woo la wala ñu xewle woo la pour nga ñëw taaral bés bi xam nga Euh, daan na am ci mélomane de la musique yi am na ci ñoo xam ne danga daan yàkkamti ñu ñëw sa soirée toog jël consommation seetaan la ndax am ñoo xam buñ leen fa gisee di leen ko wax dinañ ne ñoom diw sax ña nga fa woon du ko defee ñooñu ñëw musique bi tamit noonu la demee xale yi bon euh, loolu yëpp man dama koy rafetlu bon nit ñi di leen ma koy faral di laaj comme ni ma ko laajee nii booy lu tax loolu mais c'est normal parce que si c'est musique euh, dafa wuteeg yenn métiers yu bari kaay ma wax benn affaire mën nga wàcc yow nga nekk waykat wala nga nekk danseuse wàcc léegi dëkk boo mësul dem fekk fa ñuy jouer musique ngeen waxtaan ba nga way wala nga jouer wala nga fecc rek dugg na musique rek moo am loolu gise léegi xamante léegi ànd dem ba mën ngeen a sax bokk fi ngeen fanaan musique rek moo ko mën euh, waaw laaj nga ma question boo xam ne àdduna yëpp moom lan may laaj mais bon mën naa cee tontu quoi benn bi yàlla moo ma def ni ma mel euh, de deux am hygiène de vie bu baax de trois di nelaw bu baax man damay cogné douze heures de sommeil wala quatorze heures il ma nelaw ko beneen bi no stress ñu bari dañuy dan dan dan dañuy définir sax chaque jour que je fais maa ngi dem salle pour entraîner mais kaay ma benn affaire dinaa ko wax ci réew mi ça fait presque vingt cinq ans entraîné wu ma. defoo moo raw daw moo raw yenn weñ deux deux heures deux heures deux heures de temps enchaîné ngay tëgg mais looloo looloo raw lépp mm-hmm. di ñaq di transpirer pendant deux heures de temps ñuy def salle sax mën nañu ko déedéet dañuy def benn quinze minutes dix taxaw nan ndox mm-hmm. ñun deux heures de concert laay def di tëgg mm-hmm. endurance bu metti di ñaq tu vois loolu rek mën na la téye gëj naa entraîné mais nag il faut ma commencé ko parce que ak confinement bi nii ay xaw a jël poids yenn yére yi dootuñu la jot tu vois comprendre nga. xam nga loolu sax moom lu ah. merci beaucoup. donc euh, gisoo sax li tama bàyyi bii dégg naa nit ñi commencé nañoo werante nag ñii nee nañ dama su <laughs> sama cousin bi ma koy wax naan <laughs> seen groupe bi ku ne ngi werante et puis ñi koy laaj bari du teint mm-hmm. yàlla ma def nii yii weex yii ñuul. loolu rek wax la comme gars yi dañuy laaj naan mbay Dieye fay lu tax du xam nga doo màgget Mbaye Dieye Faye màggetul patiti patata benn bi nag xam nga non stress laay dund man non stress dama am benn kees bu rëy bu ma bind non stress bu stress ñëwee rek ma dugal ko ci biir tëj bu feesee ma këpp ko mm-hmm. tu vois mm-hmm. euh, mais fii mm-hmm. tey mu neexoon na gars yi kontaan na na partout dans le monde vraiment fu ne la ñu jot ay coup de fil ñëpp bég ndax gunge bi ñu leen gunge parce que tëju dafa metti mais yàlla ñu tëjoon waaw yàllaa tëj ñëpp nag moo sàkk feebar bi ni mu dem yàlla yàlla la yàlla la kenn mënu ko gi gën yàlla sàkkee koor nga ubbi sa frigidaire gis bouteilles yi sedd nga tëj ko ah noonu la yàlla ne àdduna bi dinaa ko téye man yàlla sama loxo tere du jóg

foofu noonu bi ñu bi ñu defee euh, bu mujj bi mm-hmm. ne après ñu xool ndax dañ koy continuer wala dañ koy téye fii mm-hmm. parce que gisoon nañ ni nit ñi kontaan nañu ñu bari naan lu tax ngeen arrêté ko ci mm-hmm. vois donc weeru koor bi ñu doon dugg àndul woon nag ñuy dem di ko def ba ak ak. waaw non am xam nga doo woor nag dem bon daan dal nañu ah tukki nañ fi bataay yi weeru koor fekk ñu tourné. par exemple koor gi mujj ñun ñu ngi woon États-Unis ah te ñu bari ci Sénégal yi sax yéeguñu ko ah xanaa ñun ñoo leen woo ne leen ñu ngi États-Unis parce que yooyu ay conseil tubaab la xam nga saalu euh, di mille personne quinze mille personne tu vois tëggi nañ ko ci weeru koor wala passé nekk États-Unis di tourner waaw tu vois mais bii mënuñu ko fi dañu fekk nag xam nga dangay ngay woo da nga ànd ak njaboot gi nu ma ko dundee comme ñëpp nin ko dundee et mm-hmm. nin ko santaane léeg-léeg ma dégg yenn yenn ci nit yi naan ba tey gëmuñu ko gis nga nit nag dafay neex a waxal nag duñ gis li fi xew gis monde bi waaye yow kan mooy téye euh, sa sa réew tëj ko économiquement dara du dox te amul lu ko waral. nga bañ koo gëm. waaw loolu ñooñu est-ce que nit la nan dem ñu defaat defaraat leen bokk. Mm-hmm. monde bee taxaw comprendre nga comme ni ma ko dundee ah comme mm-hmm. ñëpp Euh, sama mas mi ngi fi am na espace ñu ngi fi aéré na voilà donc euh, takk mas waaw xam nga boo joxatul sa papa loxo am na lu tax kenn joxetul loxo nanu moytu raxas loxo yi ba set moytu dajaloo bi moytu tere nangu digal yi ñu docteur yi tere ah mais di wax naan metti na vraiment euh, ma félicité santé ah sunu ministre Abdoulaye Diouf Sarr félicité ñi ŋànk ñi ñuy aar xam ne bu ñuy nelaw ñoom ñi ngi ci mbedd mi muy police sunu xarit Aly Ngouille Ndiaye armée nationale la gendarmerie Euh, mas coono tamit président de la république parce que yor réew suñu borom teg ko sa kaw lu dariñ lu mel nii dal sa kaw metti na war nan laa ñaanal donc moom ñu koy ñaanal vraiment moom it tamit mu yeggil ak sa góom waaw xam nga xam nga ñun nag ñun ci sensibiliser la ñu dëkk même bu dul Covid bi waaye yëpp boo dib di ci dégg lu mën a yeete def nan ko boo xoolee fii tey tout le temps ñu ngi wax maa ngi naan bul ko laal bul ko jege kii raxasulee nag yi patati patata yu jëm ci yooyu artistes yi tamit def loolu ñoom itamit gàcc ngaalaama artiste Sénégal yi wax fa dëgg yàlla message bi jàll na bu fekkee ni message rek la ñoom jàllale na message bi ku ci ne def nga euh, benn son boo xam ni pour yeete la ci li xew maa ngi leen di félicité. d'accord léegi seen jëwriñ di ministère bi ñu dénk wàllum aada ak cosaan Abdoulaye Diop génnee na lu toll ci 3 milliards jox ko artistes yi. oui yow yow dispatching boobu tey nan lañ ko war a mën a defee ak aussi est-ce que jàpp nga ni somme boobu c'est suffisant pour euh, dimbale ñi nga xamante ni ñooy sa mbokk waykat yi sa mbokk artistes yi d'une manière générale. <laughs> Mhm. waaw euh, baax na mhm. euh, gis nga lu ñëpp bokk. loo ca am na la doy. lu ñëpp bokk. loo ca am na la doy. waykat yi rek nekkuñu fi. fettkat yi rek nekkuñu fi. tëggkat yi rek nekkuñu fi. ñiy def peintre nekkuñu fi. artisanal ñoom rek nekkuñu fi boo nee aar dafa yaatu. dafa rëy waa léegi loolu état def jox ko bi. pour mu séddale ko artistes yi ku ne am ci li nga ci war a am as mu néew mu bari bu kenn xeet yaa ngi dégg xam nga man lan mooy rëy ci man lool ñu ne feebar bi dem na et donc ñuy remercier comme ni ma ko waxee président mu xalaat ministre bi xam ne culture dafa bokk ci réew aada ak cosaan. mais tonton Mbaye pilotage am na ñu naan nañu constituer un comité des sages. boole yu mel ni maestro yu mel ni yow ak Youssou Lo pour est-ce que xam nga balaa may ñëw ci dara. Mm-hmm. wax fa dëgg yàlla euh, li maam Abdou Aziz daan wax mm-hmm. naan. yàlla gémmiñ gu mu xar def ca pepp bu dul xaalis boobu yàllaa ngi ñuy jàppale alhamdulilahi rabbil alamin comme ni muy jàppalee ñëpp mais war na am c'est vrai ni nga ko waxee euh, commité de sage euh, baa ngi dégg sama benn tonton Idrissa Diop mu ne ma ministre bi wax naa naag moom tamit ci loolu moom mooy tonton flyer on tonton bu nice boobu quoi comprendre Euh, lu ci mën a am rek nan ko waxtaanee rek teg ko ci yoon parce que ministre bi tamit wax fa dëgg yàlla euh, nit bu baax la njiit la mm-hmm. yaa ngi dégg kaay ma wax la benn affaire billaay mosuma toog biroom mm-hmm. xamante nañu nag comprendre nga parce que euh, léeg-léeg nag coow li bari mais ki yàlla teg loolu mu doon ko moom li ma koy ñaanal mooy mu mën a gérer culture bi mais duma taxaw naan niki Sambata Ndiaye passé par là dama koy ñaanal parce que njiit dafa metti quoi njiit dafa metti njiit dafa metti parce que man damay dem sa léeg-léeg ba daal di ne waaw léegi mm-hmm. waaw kan moo war a nekk njiit mm-hmm. sànninte xeer bi mës naa ko wax le président Mbagnick ne ko galgal yeeg pàdd yi dina metti mais na sa xel dem ci am na way wu ñu wayoon bul faale bul toppatoo mais di leen sóor xam nga oto bi ci kanam bi ci ginnaaw moo koy klaxonné waaye moom bi ci kanam du klaxonné oto bi ci ginnaaw. jërëjëf ma tëjee conseil bi ci artistes yi ak euh, ministre bi nanu waxtaan rek ba juboo bu kenn ŋàññi kenn na ñëpp def nii. li l'union fait la force bu kenn fexe sa côté gën a rafet que côté ministre bi ministre bi tamit ba mu fexee ba côté am gën a rafet que côté na yëpp rafetandoo mm-hmm. ah tu ko defee boo euh, mu neex a gis comprendre divorce yi wax nga dëgg bari na mm-hmm. yàlla nag ni mu sàkkee sëy la sàkkee tàqalikoo mm-hmm. mais am na yu ko mën a fànq xam nga moom mooy lan fàttaliku bés bi ñu lay may soxna ak yow itamit bés bi ñu lay may jëkkër xam nga booy wut soxna loolu day na waar de wala tonton ma yónni la mais sa papa say waajur dañuy yàkkamtee jóg yow mii seen doom doxali la sa yónnent parce que sëy la fa sacré léegi yooyu yëpp tàkkusaan ba jot ñëpp daje ci jàkk ji say yow say bàjjen say maam say tànt say ndijaay ñëpp àndandoo parce que ku ne di xaar rek ñu ne maye nan ba ñu ne félicitation commencé nag yedd la nga sëyi yow itam ku góor ki kin la may nga euh, fas yéene koo gënal ñëpp fas yéene koo gënal ñëpp ñëpp ñëpp donc boo demee ba problème am rek na sa xel ñëw ci bés boobu noonu bés ba nga yónnee sa papa ak bés bi mag ni bàyyi seen soxla dugg ci jumaa ji loolu moo ko mën a apaiser nga ni ah naa ko jéggal yow ku jigéen ki tamit daal di ne ah bu ma def lu ñaaw parce que bés bii moo taxoon tu vois yooyu buñ koy xalaat yenn sëy yi du tas. d'accord waaw. Euh, mais xam nga ajaratu maam Ndiaye ngi fii <laughs> yaay xale yi. no mën nañ ko yuuxu sax ci kaw yaay xale yaa ngi fi vraiment jigéen ju baax ju am maanaa ju baax lool ci xam nga tey jii nit mën na xëy daal ne man mi dama bëgg takki te doo ta fekk doo takk dara ak yàlla tudd ko nit daal di ñëw daal di ne man mii duma takk dara fekk di di am leneen yàlla tudd na ko tu vois mais dama lay wax ajaratu maam mooy aaw buuru kër ci këram. oui am na. Euh, am na spectacle yu may waajal. am na yu bees yu ma denc. mais xam nga moment bi loo génne. du am buzz. non non non non. dañuy mélanger morceau lëmm ak 3 minutes pour sensibiliser. Mm-hmm. parce que pour sensibiliser morceau bi 2 minutes 50 lay def wala 3 minutes pour nit ki mën ko capter. Mm-hmm. mais bu guddee rek mu fàtte. et puis est-ce que ñoom ñëpp mënuñu woon dajaloo def benn si bien sûr waaw mais xam nga nag xam nga moom mooy comme li nga wax noonu xëy na yenn gars yi dañuy dégg <laughs> waaw naan am na lu ñuy joxe uh-huh. yaa ngi dégg et ku ko deful morceau doo ci am fekk loolu mm-hmm. d'accord les projets donc sont là waaw projet yi ñu ngi fi et bu ñu yàlla mayee wax fa dëgg yàlla dàqal ñu feebar bi mm-hmm. yàlla na ko yàlla tegg ci réew mi mm-hmm. euh, ba nit ñëpp delluwaat ci liñ daan def ci lu baax et yàlla mën na ko yàlla dafa baax quoi yaa ngi dégg et yàlla na jàmm yàgg pour notre pays de la Teranga suñu réew mu am maanaam yi mm-hmm. ah? nga xam ni fleur la ku ne da nga di ko arrosé mm-hmm. muy rafet. attendez bi c'est inné wala. feeling bi waaw feeling bi nag xam nga rek <laughs> waaw. loolu fa la jaar tàggoo le dernier mot c'est quoi. <laughs> dernier mot bi. c'est bon sûr. ok c'est bon ah. plaisir waxtaan gi neexoon na on a am na lu des loo bëri loo xam ne war nañ ko waxtaanee mais ce n'est que remise dañuy dem ñëwaat du ko yàq. non du ko yàq. ak ma am mbégte encore pour tëjee fa Rewmi TV Rewmi FM mës naa wax président Mbagnick ne ko télé bi ñëwagul waaye. ça va trop cartonner parce que le nom ça sonne Rewmi TV ça sonne trop tu vois beneen bi mooy ma ñaanal ko ah. ñaanal ko jàmm le président Mbagnick Diop l'africain le Sénégal nit bu baax bi nit bu am maanaa bi le rassembleur mhm. tu vois mu am jàmm li mu boot. loolu moo tax mu def li mu def. Mhm. société yi mu créer bari na te defar ñi nga xam ni ñoom ñoo ko teg waaw moom looloo ko tax a jóg ah et loolu la xam parce que xam lu tax jeunesse am def ci yëngu bu baax donc moo tax muy def confiance aux jeunes le président Mbagnick et ñaanal ko jàmm yen bi oyof ci kawam tu vois xam nga yàggul dara awards yaa ngi waroon am États-Unis faf lii ñëw Thiba ñaanal ko ñaanal jabaram yàlla bàyyi ko jabaram ak njabootam Thiba euh, ñaanal réew mi jàmm ah ñëpp am jàmm ñu fekkee ak tal yàlla tàppe xol yi changer jikko yi ku ne koo war a jox cër respect. et puis ah mais euh, bu jaree ñu ubbi studio kër Youssou Ndour foofu la ñuy liggéey de même bu feebar bi dañ dañul. tey cinq-cinq ba ma lu may liggéey fii laa leen di woo yaa ngi dégg waaw ñu def ko fi si parce que c'est le travail donc nag mais yenn nit ñi nag da doon gis dama gis ni waaw da doon mbalagaale rek waa xam na moo tax ma ni leen eh je suis chez moi waaye yéen restez chez vous waaw maa ngi nii ah mais réew mi vous êtes chez vous hmm? ah oui complètement donc yàlla na jàmm yàgg ah yàlla defal ñëpp jàmm nag. ñépp am jàmm. Ah, bu jàmm amee rek lépp baax yéenante jàmm. yéenante lu rafet. Mm-hmm. ah yaa ngi dégg te def li maam Abdou daan wax yàlla na ko yàlla dafa yàlla yàlla tàppe xol yi. te mu ñelante mm-hmm. ah, kontaan naa ci yéen nag. bég naa lool. xam du ñàkk ñu ñëwaat incha ndax yow waxtaan ak yow dañuy neex loolu kon euh, amis auditeurs c'était tout pour Rewmi People de ce samedi on revient incha la semaine prochaine ak beneen star jaajëf Ama euh, Modou Diouf. Ah, waay Ndiaye ah, si Ndiaye la sant Ama këram la ne aussi. sama tubaab sama tubaab bu ñuul euh, bi. Ana Ana Thiaw nga ne ko moom lan. <laughs> Ah, <laughs> fi toj fii ah, ne rajax waaw. <laughs> Ah. merci beaucoup à la semaine prochaine incha allah incha bon week-end chez